patriotes euh, et patriotes euh, qui nous fi nga xamante ni moom moo di euh, place page bu président Ousmane Sonko tey ñoo ngi fi nga xamante ni moo di département wu Linguère ñu jàdd ci croisement wu Barkédji dugg biir Barkédji parce que à la demande de El Malick Ndiaye croisement Barkédji le El Malick Ndiaye euh, ànd ak euh, président Habib si ak euh, Cheikh Tidiane Dieye bi nekkoon Dakar jamono yii nii pour def benn émission daal di revenir ak yeneen leader yëpp croisement barke ji indi délégation bu am boo xamante ni dafa ñëw pour accueillir la délégation de Yewwi Askan Wi conduite par le président Ousmane Sonko donc ñoo ngi fi nga xamante ni moo di entrée commune Barkédji ci yoon bi nag dañoo xaw a bàyyi yoonu Linguère bi dugg biir Barkédji mais quand ñoo ngi toujours dans le département de Linguère euh, fi ngeen koy gisee nii ñoo ngi ci bunt bi euh, ki comme je disais tout à l'heure El Malick Ndiaye nekk tête de liste nationale tête de liste départementale euh, fii nii nga xamante ni moo di Linguère moom moo ànd avec sa colistière ak euh, le président et l'ancien euh, ministre de ministre d'État Habib Sy ah nekkoon fii itam maire Linguère ah, moom ñoom ñaar ñoom ñoo ànd ak délégation bu am doole ak euh, Cheikh Tidiane Dieye bi nga xamante ne mi ngi newoon ci caravane waaye daa dellu woon Dakar ah, pour les besoins de la communication de Yewwi Askan wii doon participer ci benn émission ñoo ñëpp ñoo ñëw daje fii nii ci croisement Barkédji ah, pour accueillir saafonte ak la délégation de Yewi Askanui conduite par le président Ousmane Sonko. Donc, situation boobu noonu la ñu am ici et à Barkédji ñoo ngi buntu Barkédji dugooguñu ci biir dëkk bi mais au moins mën nañ gis nit ñaa ngi génn euh, di ñëw à la rencontre de euh, de la délégation de Yewwi Askan Wi ici à Barkédji candidat du département euh, de Linguère El Malick Ndiaye ànd ak sa colistière euh, Aïssata Ba euh, nekk fii nga xamante ni moom moo di parquet di fief am xam na loolu moo tax El Malick Ndiaye insisté pour ñu def boucle parquet ji Aïssata mi ngi noonu jeune dame boo ne ñëpp d'accord ci social bi muy def ñëpp d'accord ci engagement am donc moom moo nekk fii nii département bu Linguère nekk candidate au côté de El Malick Ndiaye de liste nas tête de liste départementale euh, fii nii ci Linguère euh, donc euh, ñoom ñoo ànd maa ngi fàttali que ñoo ngi fi nga xamante ne moo di Barkédji Barkédji nekk commune bu nekk dans le département dans le département de Linguère daanaka Euh, ci croisement parquet ji lañu délégation Yewwi Askan Wi bu département de Linguère jël si ah ils ont demandé à ce que ñu dugg biir parquet c'était pas prévu au programme on devait aller directement sur Linguère waaye nu ñuy def ak nit ñi ñoo ngi nii du euh, parquet ji duggooguñu ci biir dëkk bi on va faire un tour on va faire un tour ici à Barkédji ah def boucle bi dugg génnaat soog a continuer jëm fi nga xamante ne ah moom moo di Linguère Linguère boo xamante ni la grande caravane de la coalition Yewwi Askan Wi est attendue El Malick Ndiaye nekk euh, candidat de liste départementale bu Linguère ànd ak euh, Aïssata Ba ñoom ñaar ñoom ñooy. ñaari candidat yi nga xamante ni moom la Yewwi Askan Wi présenté fii nii ci département bu Linguère ñoom ñi ngi mënee depuis quelque temps itam liggéey bu am solo fii nii ci Linguère ku ko mën a euh, suivre euh, ci internet bi yaa ngi gis liggéey bu am solo bu El Malick Ndiaye di def euh, sur le terrain fii nii ci département de Linguère Linguère c'est un département à enjeu et c'était important président Ousmane Sonko mi ngi noonu génn mi ngi noonu génn ngir saafonte ak uh, askanu Barkédji moo ngi noonu nous sommes dans le département de Linguère dans la commune de Barkédji juste à l'entrée du territoire départemental on a fait une euh, dizaine de kilomètres pour entrer dans la commune de Barkédji Barkédji qui se trouve être Barkédji euh, qui est surtout euh, une commune importante et le fief de Aïssataba Aïssataba qui est à la candidate aux côtés de euh, El Malik Ndiaye, ici dans le département de Linguère. mi ngi noonu président Ousmane Sonko ak tengaade bi ak tengaade bi ñoo ngi dugg commune Barkédji Barkédji bokk ci département wu Linguère ah fii nii El Malick Ndiaye euh, ak Aïssata Ba ñoo fi candidat pour la coalition Yewwi Askan Wi commune u Barkédji mi ngi trouvé wu à 25 euh, ci croisement bi la ñu dogale ak le président et ministre l'ancien ministre d'État euh, moom moo di Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye El Malick Ndiaye ak Aïssata Ba recevoir la délégation ñu ni ñaan ne nañu dugg biir barke gi ndax ki nga xamante ne moo di Aïssata Ba fi mooy fiefam et ñi ngi ni def une dizaine de kilomètres pour dugg dans la commune de Barkedji à la rencontre de la population di fàttali ñu ñuy xaar fële nga xamante ni moo di Linguère euh, Linguère di département bu am solo Euh, ci Jolof Jolof bu El Malick Ndiaye ngoog yéen a ngi gis euh, image yi nga xamante ni moo di fii nii à Linguère dans la commune de Barkedji avec euh, la tête de liste départementale El Malick Ndiaye ak euh, candidate bi Aïssata Ba ñoom ñaar ñoo ànd fii nii ci commune ci je rappelle Yewwi Askan Wi dans sa caravane euh, ñu ngi ci tournée ànd ak euh, le président Khalifa Sall Déthié Fall Cheikh Tidiane Youm Maimouna Bousso Cheikh Tidiane Dieye Moussa ak le président Ousmane Sonko président Habib Sy ñoom ñëpp euh, rejoindre nañu caravane bi Aïssata Ba la candidate euh, de la coalition Yewwi Askan Wi aux côtés de El Malick Ndiaye tête de liste départementale euh, de Linguère de la coalition Yewwi Askan Wi ont accueilli de Yewwi Askan Wi le président Ousmane Sonko au croisement de Barkédji à une dizaine de kilomètres la commune de une commune euh, située à 25 de celle Je disais que la commune de Barkédji est située à, à 25 km de celle de Linguère, Linguère chef-lieu département de, du département éponyme Linguère, dans la commune où actuellement on nous attend pour la grande caravane suite aux sollicitations. de El et de Aïssata La délégation conduite par Ousmane Sonko et le président Khalifa Sall a accepté de faire un détour sur une dizaine de kilomètres euh, dans la commune de Barkedji. Barkedji qui est aussi le fief euh, de la euh, de Aïsataba, Mingok, euh, nous sommes dans la commune de Barkedji. Barkédji qui accueille le président Ousmane Sonko et la délégation de Yewwi Askan Wi. Nous sommes dans le Jolof, département de Linguère. One, one, one. ñi nga euh, commune euh, bu Barkédji Barkédji situé à kilomètres euh, de la commune de Linguère Linguère commune éponyme chef de département de Linguère nous sommes fii nii à Barkédji mu di commune bu am solo ndax commune la boo xamante ne la colistière moom mooy la candidate de Yewwi Askan Wi aux côtés de El Malick Ndiaye moom fii la dëkk Ah, ci seen ah, la ñu ñaan lideer yi rek ñu dugg fii nii parce que c'était pas prévu ñu jaar Barkédji parce que Barkédji ah, da ngay bàyyi yoonu Linguère bi nga duggu sur 10 kilomètres balaa ngay àgg ci Barkédji donc lii nii day wone rek cofeel bi ak flexibilité bi nga xamante ni les leaders dey Yewwi Askan Wi ñu ngi koy def saa su ne. pour jéem a daje ak askan euh, après ñu ngi xaar fi nga xamante ni moo di Linguère on sera euh, disons dans une heure de temps maximum on sera à Linguère où la caravane nationale doit se dérouler euh, dans la commune de Linguère. bay bay bay bul daw gaan damay moom mi ngoog El Malick Ndiaye nee na waxtu bi jot na El Malick Ndiaye tête de liste départementale bu Linguère représenté fii Yewwi Askan Wi ak le parti Pastef les Patriotes nekk secrétaire national à la communication mu ànd ak Aïssata Ba sa colistière Aïssata Ba nekk fii nii ci barke ji fi mooy fam ñoom ñaar ñoom ñoo représenté wala ñoom ñaar ñoom ñoo candidat wu Askan Wi fii nii nga xamante ni moom moo di département bu Linguère Linguère nag buñ ko waxee ñu ni euh, bu am solo la euh, ci daanaka euh, ci échiquier politique bu Sénégal ils ont fait un un score euh, très très honorable au-delà des attentes ci élection locale yi ni passé pour dire que ni vraiment gars yi ñu ngi ci yoon. mi ngoog nous sommes à Barkedji commune située à 25 kilomètres de Linguère chef-lieu de département.

nit ñi ah, bu ñu bàyyee seen lépp di la xaar day baax des fois nga dugg fu ne waaw saafonte ak nit ñi du la wàññi dara c'est une dizaine de minutes au plus yoo xamante ne c'est inestimable pour une localité c'est inestimable ah, pour ah, les populations ñu ni atum ca weeru juillet Euh, ñu ni leen effectivement le président Ousmane Sonko ñëw na fii ak waa Askan Wi c'est des choses qui marquent et des séjours qui sont importants donc euh, lii mooy le rendez-vous de Barkedji a été quoi qu'on puisse dire, l'effort a été fait. Nous avancer rapidement, comme Nani prise de parole du Come on. కేశవా ఏ ఏం ಬೇಕು ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಾಡಿಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಹಾ ಉಯ್ಯಸ ಅಲ್ಲ mais oui ma yaay Fatima mais loolu gis nañu ne asalaamaaleykum mbokku barke ji ñi ngeen doon xaar boobu muy délégation Yewwi Askan Wi yegg si nañu fii barke ji la de la coalition Yewwi Askan Wi yegsi na barke ji le président Ousmane Sonko. le président de la conférence des leaders yegsi na muy le président Khalifa Ababacar Sall. le président Cheikh Tidiane Loum

Maimouna Bousso yegsi na Barkédji kon nag ñi ngeen doon xaar boobu ba tey yegsi nañu dañuy def liggéey bu gaaw ndaxte yeneen étape ñoom ñuy xaar kon dañuy gërëm aussi ki nga xam ni kilifa la ci conférence des leaders doon un sage donc un membre éminent de la conférence des leaders ñëpp respecté ko mu doon fii kilifa doon kilifa ci Sénégal doon kilifa ci àdduna bi te mu accueillir ñu muy le président Habib Sy di félicité ñëpp ñi nga xam ni ay candidats lañu fii ci Linguère Linguère moom dafa mel ni sax ni coalition Yewwi Askan Wi da leen beral loxo ndaxte am ngeen fi Oumar Sy candidat la am ngeen fi Aminata Dieng candidat la am ngeen fi Thierno Diop candidat la am ngeen fi Sey Cissé candidat la am ngeen fi Fatoumata Mbacké candidat la am ngeen fi Abdou Thiam candidat la am ngeen fi sama xarit sama jeune frère quelqu'un qui fait un travail remarquable dans la communication de Yewwi Askan Wi El Malick Ndiaye candidat la aussi à Linguère kon sans plus tarder voilà Linguère qui présente euh, sept candidats sur la liste euh, Yewwi Askan Wi pour les élections législatives du 31 juillet 2022 bu waxee ba pare ñu jox Ousmane Sonko mu wax ak yéen bu ko defee yeneen candidats yi bu demee yeneen zones yi ils pourront également parler incha allah kon madame Diouf askanu Barke ji sa askan ñoo ngi lay déglu la parole à madame Diouf merci beaucoup. bismillah rahmaan rahim salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Jolof salaamaaleykum Barkéji nari maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo sëñ Moustapha Sy le président du PUR di nuyu bu baax le président Khalifa Sall moom mi nga xam ne moom lañ teg ci boobu leelu boppu yeewi askan bi di nuyu président Sonko di di leen sant di léegi sonn ngeen wax dëgg yàlla mobilisation bi macha allah ñëpp dañ doon barkeel bu bu yeewi askan bi ñëw dañu fekk six personnes waaye yéen wan ngeen ni carrément yeewi askan bi ngeen maa ngi leen di dénk nag ngeen préparé waxante dëkk bi de bouche à mais assemblée ngeen ko bu ñu amul majorité assemblée nationale 9252 électeurs Barthélémy ñu ngi compté 14 bureaux de vote